الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الإخوة المؤمنون إن الله سبحانه وتعالى يعلمنا في القرآن الكريم أن الأولاد منحة منه وزينة للحياة لكنهم في الوقت نفسه امتحان واختبار لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم وهذه الصفات المجتمعه في الاولاد تجعل مسؤوليه الوالدين معقده ما بين شكر الله على منحنا اياهم والفرح والسرور بهم والاجتهاد في تربيتهم وحمايتهم للنجاح في الامتحان وهذه الجوانب المتعددة للمسؤولية تتحقق بتربية الأولاد تربية حسنة تجعلهم عبادا لله نافعين لأنفسهم ولمجتمعاتهم وتحقق لهم السعادة في الدنيا والفوز في الآخرة noo ngi sant yàlla di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ñaan yàlla mu doole ko xeewal ak mujj moom ak njabootam ak saxaabaam ak képp ku jaar ci aw yoonam ba àddinay tukki mbokk yi yàlla nañuy xamal ci alquraanul karim ne njaboot gi mu nuy jox xeewal la taaru àddina la itam waaye tam mi ngi nuy xamal ne am nattu la itam nag yàlla ku jox njaboot defal na ko xéewal may na ko itam luy taaral ak dundam waaye itam nag am nattu la moom moo wax ne yàlla mooy may ku ko soob ay doom yu jigéen rek di may ku ko soob ay doom yu góor rekk di may ku ko soob ay góor ak i jigéen ku ko soobit sax mu bañ koo mu bañ koo may doom mu wax na it alal ak njaboot taarub taarub dund gi la dund bi àddina gi la waxaatam ne seen alal ak seeni njaboot nattu la ci yéen kon yooyu yëpp yàlla moo na ko xamal ci alquranul karim yooyu daje nag ci njaboot gi tax na ba waru garu wayjur yi doon warugar wu wu war a ëmb wàll yooyu yëpp war nañoo sant yàlla kon ci njaboot gi mënu jox ndax xéewal gi mu doon war nañu ci bégit ndax taar bu àddina bi mu doon waaye war nañoo farlu ci yar ak aarleen leen ngir nattu bi ñu doon ba bu ëllëgee natt bi ñu ci yàlla di nattu nu mën a jàll bu ëllëgee wàll yooyu yëpp nag li koy sottal rek mooy yar ko yar bu rafet ku am njaboot yar leen yar bu rafet yar bu rafet bi mooy tax ñu doon jaami yàlla doon ñu amal njariñ seen bopp doon ñu amal njariñ itam mbooloo mi ñu nekk ci seen biir mooy tax itam ñu mën a am tax àddina am tax ak àllaaxira te yar njaboot day jur ay njariñ yu teew balaa ëllëg muy àddina sii rek dana fi jur ay njariñu yu teew yoo xam ne noo koy gisal sunu bopp bokk na ci li jur rek xel mu dal ku yar njabootam dal xel gi muy am rek jaroon na bu bu ci yemoon rek dana ko jar ndax safaan ba ki njabootam yaruwut xelam du dal fu mu mi ngi ragal ñu ñëw di ko ak si ak ñëw di ko boole si ci yar njabootam nag xelam daa dal ci wàllu googu yar njaboot yi itam mooy tax ba ak dal am ci biir mbooloo ndax ab yar bu yaatoo rek ak dal day am jàmm am ndax bu safaan bi yaatu woon safaan bu mooy am ñàkk dal ak ñàkk jàmm kon loolu dana ko jur ci njariñ yu teew waaye bu ëllëgee it dana jaral dana jural ki yar ak njabootam njéggal gu ko yàlla di jéggal ak it tàbbal moom koy tàbbal àjjana ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne ku am ak njaboot rawatina buñ dee jigéen rawatina buñ dee jigéen ku leen am yar leen yar bu rafet kooka ñooñu dañuy dox digganteem ak sawar mooy dañ koy aar ci sawar yarum njaboot nag day laaj yërëm leen ak aar leen yërëm len ak ar lañ ci lepp lo xamne lu len mëna lor la ñaar yoyu nak bu nu sétlo ci jamono yu mujju yi dañu sét né dafa xawa a manqué ñi njabota njabot gi am ci ñooñ seen yërmande des na ñu ci bari nak sax kaaraange gi ñu wara a seen jabon mom des na te des taxna ba am yu juddu yu xew ci jamono yu mujju yi bari na ay njaboot yooyu lor dal na ci seen kaw yenn lor yi du luñ jublu li ñuy tuddee accident la waaye nag lu ci bari ak xaw càggante dugg na ca biir njaboot ku ko am da leen war di bàyyi xel ci jamono yu ne warul leen di bàyyi ñuy wéet ñoom rek ndax bu ñu ñoom rek mën nañoo def leen di gaañ wala ñu def ak yàq kon càggante dana am léeg-léeg ba nit bàyyi njabootam du ca du leen nemmiku ba accident man caa am te loolu xew na ci jamono yi ci béréb yu bari ci réew mi ak ci dëkk bi waaye ñàkk yërmande ji itam dana feeñ ci ñenn ñiy jubbanti seenum njaboot moo xam ñuy seeni doom moo xam ñooy ñuy njaboot goo xam ne daal ñoo leen yore war leen a yar war leen a taxawu bu ñu leen waree jubbanti danañ ci ëppal ba léeg-léeg lor juddoo ci loolu tamit ngi am ñoo xam ne jubbanti ñu ñu war a taxaw xëy na yërmande ju ñàkk tax na bañ àgg ci lor leen lor ju rëy rëy bàyyi bakkan sax di ca des loolu nag yërmande ju manqué moo ko waral lenn li lenn li itam ak gàttañ lu ak càggante ci li ñu war a sàmmee njaboot gi ñu leen war a taxawoo moo koy waral noo ngi ñaan yàlla mu mayoon yiwaat nag waa laaxira musal nu ci sawara sàmmal na sunu ngëm ubbil benn bunt yiw yi soob nu ci njub may nu fan gudd ak wér ak mujj rafet الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أيها الإخوة المؤمنون إن تربية الأولاد تحقق منافع عاجلة في الدنيا من أمن واطمئنان واستقرار وتسبب غفران الذنوب ودخول الجنة يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار وتربية الأولاد أيها الإخوة المؤمنون تقتضي الرحمة بهم وحمايتهم من كل ما يضرهم لكننا نشهد في الآونة الأخيرة قسوة ملحوظة من من جانب بعض المسؤولين عن الأولاد حين يقومونهم وتقصيرا كبيرا من جانب بعض آخر في حمايتهم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 وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات يا الله واسلك بنا نهج رشد واكفنا زللا واطرد لنا الجن والشيطان يا الله وكملا كل ما ننحو ونقصده وهب لنا كل ما نختار يا الله وارد لنا كل ذي صعب وذي حرن ويسرا كل ذي تعسير يا الله طول لنا عمرا صحح لنا بدنا وهب لنا الرشد والتوفيق يا الله